Mawlana Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. xalifa général di Mouride. muy yeesalaat. muy yeesalaat. ndigal lim ko joxoon. ndigal lim ko joxoon. ci war war may Touba ji. ci war may Touba ji. te mu bokk ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. te mu bokk koog njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. mu ni Serigne Mountakha da koo joxaat ak yeesal nag. mu ni Serigne Mountakha da koo joxaat ak yeesal nag. bëgg liggéey bi. bëgg liggéey bii. da ko waajuram yi doon def. na ko waajuram yi doon def. te doon ko ci aw kayit. te doon ko ci aw kayit. ñu tàmbalee ca loola. nee na ñu tàmbalee ca loola. ak moom ci boppam lim ci yokkal boppam. ak moom ci boppam lim ci yokkal Sëriñ Abdoulaye Mbacke daa waxoon ci nii. mu ni Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Mbacke daa waxoon ci kayit wii nii. yow pro yow procureur. yow procureur. de la république. de la république. mi nekk ci tribunal bu njaareem. mi nekk ci tribunal bu njaareem. man Cheikh Abdou Lahad man Cheikh Abdou Lahad xalifa bi yoonu murit xalifa bi yoonu murit maag njabootu Serigne tubaa maag njabootu Serigne Touba gi gii di samay rak gii di samay rak ñoo bokk signé ñoo bokk signé bataaxal bii bataaxal bii di ci naqarlu di ci naqarlu bu wér bu wér ci ci lu nu bëgg ci lu nu bëgg mu faju mu faju di loo xam ni di loo xam ni dafa waru dafa waroo dafa waroog ak lifi ak lifi sëriñ Touba sëriñ Touba nekke woon nekke woon ci liy rëddu Touba ci liy rëddu Touba jii moom mi nga xam ni moom mi nga xam ni moo ko sos moo ko sos loolu loolu mooy di jaay mooy di jaay di jëfandikoo sàngara di jëfandikoo sàngara ak bépp mandité ak bépp manditeef. sàngara lépp luy mooy jaay sàngara ak lépp luy tax a rek. loolu dorog bu a ci biir. loolu dorog ak lépp mi ngi ci biiram. ci lu nëbbu. ci loo xam ne nag daa nëbbu. ak ci lu feeñ. ak ci lu feeñ. di jaay mbaa nga yor. di jaay mbaa nga yor. mbaa ngay jëfandikoo. mbaa ngay jëfandikoo. dorog. dorog. yamba. yamba. ci lu ci lu nëbbu. ak lu feeñ. ak lu feeñ. loterie di loterie ak carte ak carte di sàcc di rawale di rawale ak lu ne ak lu ne ak lu ñu demee ak lu ñu demee ah, baa ngay rawale baa lu ko noonu di bépp xeetu ne ak bépp xeetu po waaw bépp xeetu po po tama tama sabar sabar fecc fecc ak woy ak woy yooyu yëpp ci lim fi bañ lay bokk ne yooyu yëpp ci lim fi bañ ci Touba ci la bokk ak lépp lu dul ak lépp lu dul yii yii tey lu tey lu lii ak lu lu sarti sarti lislaam lislaam Touba Touba fukki fan fukki fan ak juróom-ñett ak juróom-ñett ci weeru septembre. ci weeru septembre. 1980. 1980. booba la joxoon ndigal loolu. booba la Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Mbacke joxoon ndigal loolu yi. muy nag ci moom Serigne Abdoulaye Mbacke. muy nag si ñenn ci moom Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Mbacke. ah a ngi ci naan li ci suuf waaw. Ah. ak Serigne Abdou Khadir Mbacke. ak Serigne Abdou Khadir Mbacke. ak ak sëriñ Mouhamadou Mourtala ak sëriñ Mouhamadou Mourtala Mbacke boobu ñoom ñoo fi nekkal sëriñ Touba boobu ñoom ñoo ñi ñoo fi nekkal sëriñ Touba boobu waxtaan na ñoom ba déggoo ñoom nee waxtaan na ak ñoom nag ba déggoo ñoom ca booba ba lii Serigne bañ ci dëkk bi. ba lii sëriñ Touba bañ ci dëkk bi. ñu ànd dindi ko. sëriñ ànd ñoom. ba kenn ku ne wax sa kàddu ba kenn ku nekk ci ñoom wax sa kàddu bind signé. bind signé. ne ànd nga ak moom ci lii. ne ànd nga ak lii Serigne Abdoulaye Mbacke wax ci Touba. waaw Serigne Mountakha nag moom. nee nag Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke nag moom bi mu ñëwee. sama wàllu sama mu man ci sama wàllu bopp. mu ni man Serigne Mountakha Mbacke sama wàllu bopp. maa ngi fàttali. maay fàttali. mbooleem. mbooleem. ñi ma bokkal. ñi ma bokkal. Serigne Touba. Serigne Touba. ak taalibe yi. ak taalibe yi. ak taalibe taalibe yi bari. taalibe yi. ak taalibe yi yëpp. tere. tere yi. tere yi nga xam ni tere yi nga xam ni. tere yi nga xam ni. sama kilifa ya sama kilifa ya. sama kilifa ya. ñoo ko doon. ñoo ko doon. digle. digle. muy Cheikh Abdoulaye Mbacke. muy Cheikh Abdoulaye Mbacke. ak mbooleem. ak mboolem. rakam yi rakam. ak mboolem rakam. yi mu fi. yi mu fi nekkaloon. nekkaloon nekkaloon. dañoo maase. dañoo maase. woon. woon. signé. signé. tere ko. tere ko. ci dëkk bi. ci dëkk bii. maa ngi koy feddali. loolu bi nag maa ngi koy feddali. feddali waat. feddali waat. di yeesalaat. di yeesalaat. ni lépp. ni lépp. lu jëm ci. lu jëm ci. wàllu politique. Mm. wàllu politique. ci anam gu mu mën a doon. ci anam gu mën a doon. dañu koy tere dañu koy tere koy tere. ci dëkk bi. ci dëkk bi. ak lépp. lépp. lu jëm ci. lu jëm ci. xeeti. xeeti. po xeeti po. walla wala. football. football. wala. wala. lu ju wala juyoo. wala lu juyoo. njàngaleem Serigne Touba. ak lépp lu juyoo njàngaleem Serigne Touba. ni ko sëñ bi waxee woon rek ni ko sëñ bi waxee woon rek sun kilifa yi ñu booleel sun kilifa yi ñu booleel ñu ne ci sun kanam ñoo xam ne ñu ne ci kanam nañ leen déglu nan lii di déglu lépp luñ bëgg lépp luñ bëgg wax nu ko wax ñu ko ñu ànd ñoom ñu ànd ci ak ñoom waaye bu jëfandikoo mukk waaye buñ jëfandikoo mukk suñ xelum bopp suñ xelum bopp wala suñ yaakaari bopp ndax li ñuy jëriñ moom ndax li ñuy jëriñ moom ci lay bàyyi ko kon nañu ànd ak ñoom ci ndigal yi di leen déglu bu baax rek di leen bu baax a baax rek nee jërë ngeen jëf. sëriñ bi bëgg ñu. nan defe ko noonu. lii nga xam ne moom la sëriñ Fallou lim léegi muy tere yi nga xamee mooy tere sëriñ Abdoul Ahad tere yooyu moo fi wéy ba léegi li ci sëriñ Mountakha yokk nag mooy politique ak football ci Muntaxa yokk bëggoon nag nun ñi nga xam ne bii ñooy saytu loolu ñu yem ci loolu rek bañ ko weesu ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp ak bokk yi ñuy teewlu yëpp ci turu jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Mbenda di ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam lool teen nu wéram gii ba yéene ji mu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall bii mu def si lu kawe njortam ànd ko njaboot gépp di jot li nuyoo boobu yi nga xam ne mooy bàyyi ko si moom saa su ne ak ub siyaar di jëm Cheikh jëwriñam di du Modou Mountakha waaye di ñuy njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye di jot li am nuyoo ak i cant di jëm si njabootu boppam gi di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall wax na ni wax naa ko léegi ne ko bi nga wooyee sa njaboot gi de ñëpp wuy si nañ bunt kër Cheikh Fall ñëpp a ngi nii toog jëwriñ ju ñëwut yabal na ñësës si moom wala ndaw lu mat ndaw teewal ko fi sa kanam ndax sa kàddu rek la ñuy déglu sa baat rek la ñuy déglu li sëriñ bi woote nag ak cant ak gërëm boo xam ne bii saa su ne day bàyyi ko si moom di jëm si njaboot gii nga xam ne ñooy taxawu ndigal yi si gannaawam mu wax ni taxawaay yi mat na sëkk kon dafay jaadu bu toogee ba mu yàgg mu woo ak njabootam ay ñaanalaat leen ay sakkuwaat si ñoom ñu ñaanal ko ba ndigal yii ngeen sengu nekk lépp ngeen mën ko àggale ba songu yeneen àggale ko kon sëriñ bi wax na ne mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal sama borom kattanal leen ba ndigal yii ngeen mane ko ni ko sëriñ bi bëgge li si dolli ko woon lii sëriñ lu doon leeral sëriñ bi dafa wax ne ndigal lii ba mu ñëwee woote woon na fii ñu leeral ko yoon yi yoon yu bari woote waat nañ leeral ko waaye nag dafa am ndigal lu dellu siwaat si moom moo waral woote tey bii mooy sëriñ bi da koo bindaat ab bataaxal yónnee ko ko daal koy xamal ne ko bataaxal boobu yi ma leen joxoon day moom laa bëgg nga soññi njabootu Seex Rafal gi ñu tënku si loolu yi te yem sa képp yaakaar naa ndaw lool yi leetar boobu yi bi mu mujj yónnee fi moom jaa jaar na ci sëriñ Bass Abdou Khader jaar ci sëriñ Cheikh Saliou ñoom ñëpp ba muy soog a agsi fi sëriñ bi ñoom ñëpp maase ànd si la sëriñ Mountakha digle muy li mu bind si këyit wii ne nañ ci yem mu ne nañ ci yem Mm-hmm. loolu nag waxoon nañu ko sa yoon wële mm-hmm. waxaat nañu ko tey jii mm-hmm. waxaat na ko sëriñ bi moo tax mu ne dama bëgg lii sëriñ bi bëgg te wax ko nuy tàmbalee foofa yem foofa lii nga xam ne moom la sëriñ Fallou doon lim moom la sëriñ bi wax nu nu yem si képp waaye ngir nu doxal loolee sëriñ bi dafa joxe woon ndigal ni mu ko sàkk woon si bundu kër Cheikh fal yëpp si jëwriñ yi kenn ku sekk tànnal ko ay ndaw ndaw yooyee nekkoon fii doon saytu loolee di ko ànd ak moom te waxtu wu ne ñu si yëgoo ak kilifa yeleen yabaloon ndaw yooyee sëriñ bi day wax ni liggéey bi ñu doon liggéey moo leen ko santoon mu ngi nii toog sëriñ maam Cheikh Khalifa ngi nii sëriñ Assane ngi nii sëriñ Ousseynou sëriñ sëriñ Fallou ngi nii kenn ku si nekk liggéey bi sëriñ Badaa ngi nii ba nu ñëwee fi moom mu digal leen lool ne leen damaa bëgg ngeen saytu ko ñoom ñoo toog xalaat di xalaat ci liggéey bi nan lañ ko war a doxalee gannaaw ba nu sëriñ bi joxee kàddu jox ñu baat wan yoon wi ñu war a jaar sëriñ bi nag ne nañu xalaat nag léegi yoon woowu nan lañu siy jaare yoon woowu su liggéey boobee nag moo àgg si ñoom ñu xalaat ni danoo war a taxawal lii sëriñ Fallou doon tudd mooy lii ñu nga xam ne ay kuréel la yoo xam ne dañ koo sàkk kenn ku si nekk ñu jox la ab cër si buntu kër Seera Fall yi li dalee si kër maam Saliou faal jaar si kër Cheikh Modou Moussa ba si kër sëriñ Gonda Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ke fenn fu ne ñu tànn fa ay jëwriñ yoo xam ne ña ko tànn mooy jëwriñi kër ga joxe ko ñooñee ñu boole leen ci liggéey bi loolaa taxoon sëriñ bi wax ne ñii dafa bëgg nu xam ne nañ leen nangul lépp loo xam ne xalaat nañ ko tëral ko ne nii la sëriñ bi bëgg nu doxe ni nañ xam ne ni loola mooy bëggu sëriñ bi loolu la sëriñ bi digle maanaam kon su su boobaa ñun dootuñu doxe sunum xel su boobaa dootuñu doxe suñu xalaat ndax ñun wër noo am xel war noo am xalaat lu dul ci jëfe ndigal li waaye si jot ndigal li moom foofa am xel amu fa sëriñ bennu tànnal ni ñi nga xam ne ñooñ lañ tànn si kër si maam Saliou ba si kër sëñ Ngunda Fall si di ay jëwriñ ñooñi di tënk nañ loo xam ni doxin boo xam ne ñi ngi ko sukkandikoo si moo Cheikh Modou xaar gi nga xam ne moom la dénk sëriñ Amdi Fall ngir ñu doxal loolee sëriñ ah, sëriñ bokk danoo fal kuréel goo xam ne sëñ Amdi Fall mii mooy président bi moo ko jiite muy sëñ Amdi Fall mii moom moo ne mooy jiite liggéey bi daal di wax ne baatam nag moom sëñam di faal man daam sooda mii la ko jox maa koy jëleli ndigal si sëñ Muntaxa di ko ko indil mu di ko yaatal di ko yóbbu si njabootu Cheikh Rafal gi mm-hmm. maa koy jëlewaat si ñoom it di ko delloo si waat moom di ko yóbbu si sëriñ Muntaxa mm-hmm. baat boobu yi moom moom yi la ma jox wax ne ñi nga xam ne ñoom la tànn ngir ñu doxal liggéey bii mooy sëriñ Assane Fall mii mu Cheikh Modou Moustapha Fall ak sëriñ maam Cheikh Khady Fall mii mu Chérif Assane Fall ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Ali Fall Mbawor mi ngi nii toog ñoom ñoom ñoo yore li ñuy wax secrétariat général nga xam ne ñoom ñoo yore décision yi nga xam ne moom dañuy tànn euh, ñooy xalaat euh, yoon yi nga xam ne moom la teg woo si njaboot gi ñu waxtaane ko ba am sa aw doxin ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk bépp xéewal boo xam ne bii liggéey bii jur na ko mooy moo xam xaalis la moo xam lu mu doon Euh, tànn nañ ci sëriñ sëriñ Amdi Fall moom sëñ Taala sëriñ Basiiru Fall Cokki moom sëriñ Seex Cokki ak sëriñ Fallu Fall mu sëñ Taale Yaasin ñooñu lañ tànn muy ñi nga xam ne bu fi xaalis duggoon ak nu mu mën a toll ñoom lañ koy dénk ñu téyel nu ko lépp lu luñ ci yittewoo mu jëm ci wàllu liggéey bi ñoom ñu yor ko ñu ñu joxe ko ñi nga xam ne ñoom ñooy yaatal mbir mi yore wàllu jokkalante bi. biñ dajee am na am na am na lu ñu soññee woon ci seen biir ñoom sëñ Assane. ah ak sëriñ maam Cheikh ñoom ak jaayante lañ sonnee woon ci seen biir kero wax ni liggéey bii gannaaw dañuy woote di soxla ay xéewal kenn warul leen see jiitu mooy du du nu toog rek di xaar nit ñi nu indi waaye ñoom ñooy jóg jaayante moo taxoon nu soññee ab jaayante ñoom ñëpp keroog nu jaayante woon ñu ne nag jaayante googu nan ko yaatal nag si si murit yëpp nag mm-hmm. ba liggéey bi nu xam ne liggéey bi tàmbali nañ ko te li ñu si yittewoo lépp si ay xéewal si murit yi dong lay jógee kon nu yaatal ko si képp ku ne loo si mën a jaayante nga jaayante ko si sëñ Abibu mu sëñ Fallou. waaw sëñ Abibu mu sëñ Fallou. moo ñu moo ñu waxoon loolu bañ demee fa moom. waaw waaw sëñ Abibu bii ngeen bëgg a def. Mm-hmm. daf foog mu laaj moyen. Mm-hmm. kon nag da ngeen di fexe ba murit bu ne. Mm-hmm. jaayante. ñu wut téeméeri junniy murit. ñu jaayante ku ne ñaar euh, ñaari junni ñaari junni. waaw loolee ca muy milliard muy milliard. waaw loolee ca la ñu tàmbali woon. di ko dox amin Fall amin amin Fall amin amin amin amin amin amin amin fa raayo leen